jërëjëf sama teewaay tey fii ci Sicap Liberté mooy ne que dama ñëw accompagner jàppale ndaw ñi nga xamante ne tey jii ñoo fi toogal le président Macky toogal fi parti bi fii ci Sicap Liberté dama leen di féliciter di féliciter également ki nga xamante ne mooy le ministre Zahra Iyane Thiam nga xamante ne moo leen jàppale pour que activité bi mën a am di féliciter également les autorités administratives qui son venues nu accompagner di féliciter ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ ci activité pour mu mën a sotti activité bi nag activité citoyenne la gën a jege que politique parce que ndaw ñëpp dañoo dajaloo ñëw ne dañuy jàppale école bi en terme de kit sanitaire de kit scolaire pour que suñu rakk yi nga xamante ne ñoo ngi jàng ñu jàng bu baax mais ñu sóoraale ne am na benn pandémie benn feebar bu ne ci dëkk bi ñu mën ko moytu bu baax a baax loolu mooy sama teewaay tey jii pour jàppale ndaw ñi nga xamante ne ñoo fi teewal la COJER mais teewal fi également euh, le président euh, de la République. waaw task force bi defe naa ne structure bu am am solo la bi nga xamante ne président de la République ci ndigalam la la jóge ci la juddoo task force boobu nag dafa ñëw pour jàppale parti bi. jàppale mouvance bi gën a communiquer ci li nga xamante ne mooy réalisation du président Macky mais également gën a jàppale structure yi nga xamante ne ñoo nekk biir alliance pour la république ñëwul pour bousculer les structures di parti mais dafa ñëw en renfort dafa ñëw en nappui justement à l'ensemble di parti mais particulièrement à toutes les structures di parti waaw jàpp tey suñu activité bi ñu organisé ci commune bi li ko waral lu simple la bu ñu xoolee pandémie bi fi mu toll ci Sénégal ñoo ngi toll bay waxaat ni sax am na beneen deuxième vague buy ñëw école école bi nga xam ne fii suñu rakk yi suñu suñu doom yi di jàngi jee tey jàpp naa ne suñu devoir la ñun en tant que ñu doomu gox bi ñu accompagner leen protéger leen parce que ay xale lañ te xale yoo xam ne ni bu ñu jógee ci école bi ñu dellu soit ci kër gi kon donc gestes barrières yi war nañ ko mën a respecté ci établissement yi respecté ko ci mbedd bi ko également ci kër yi ba nga xam ne xale yi nga xam ne ñoom ñoo nekk les les les plus ñu mën leen a protéger ndax loolu noonu moom mooy suñu devoir te éducation bi éducation moom mooy avenir u xale donc foofu noonu ñu nga xam ne fa la ñuy construire seen avenir war nañoo mën def tout a def lépp ba bu kaaraange bu mën a dem ba mën a ñibbisiwaat ci jàmm ak salaam. en tant que structure politique structure jeune bu nekk ci commune bi dañoo fas yéene ànd ak école yi di leen jàppale ci lépp li nga xam ni seen initiative la lu ñu bëgg la lu ñu bëgg a def la maanaam mooy muy wàllu wàllu wàllu comme ci tey action bu ñu def nii mooy protéger leen ci pandémie bi. jox leen ay outils yoo xamante ne dinañ mën a sàmm seen bopp sàmm ñu ngi fay fekk sàmm seen waa kër a nga xam ne fa la ñuy delluwaat mais également accompagner leen ci d' autres programmes yoo xam ne ay programme école la mooy comme le reboisement également faire des actions yoo xam ne xale yi dinañ mën a sentir seen bopp comme des des enfants yoo xamante ne ay enfants yu prospères lañ ci biir commune Sicap Liberté